allahu akbar allahu akbar ala ibadillahi salihin ashhadu an la ilaha assalaamu aleykum allahu akbar allahu akbar allahu akbar leen wax assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu di sant yàlla bu baax ci jëmmi Sëriñ Tuubaa ju ñu booleel di ko sant bu baax itam ci may gim na may ñu fekke waat ko ni ñu ko fekkee woon daaw yàlla ñu ko teewaat nag ne déwén te kenn bañ a manqué ginnaaw loolu ñu leen ni tabaski sunna la su feddaliku ci képp ku ko man muy mag muy ndaw su ko defee lañ ci gën a bëgg mooy ki ko am bàyyi ba ilimaan ji rendi ba noppi mu door a rendi tere nañ itam ci tabaski ku jaay ku ci jaay dara donte kilo ko feesal la la ca war a def mooy nga fay ko xaalis te soo ko ca mënee jox nga jox ko ci ngir yàlla waaye bëgguñ ko ci jaay benn lenn lenn ci tabaski mi la ci gën a itam dafa wuuteeg hadiyu bi nga xam ne moom def ca màkka waa màkka yi di ko def bu dee hadiyu moom gëléem a ca gën jëm suuf bu dee tabaski nag xaar a ca gën jëm kaw kon ñu xamee ko noonu sopp nañu itam ci képp koo xam ne kii weeru teru na te nga bëgg a tabaski nga bañ a dagg dara ci say we ak sa kawar ba bisu tabaski ba ñëw bëgg nañu itam ñi nga xam ni eh, bu bu jullee tibsaat tisbaar tey ji ba noppi li ko tàmbali tey ji ba suba talaata ja ñuy kàbbar ayaam mi nan muy yi ñuy def ayaam mi nan foo jullee suba foo jullee ba noppi farata nga wax allahu akbar ñetti yoon doy na sëkk loolu mooy li nga xam ni mooy yóbbal yi ne bëggoon nañ ko yóbbal ci lu aju ci bis bi ngir ñu fàttaliku ko di xam ne nag tabaski doonut loo xam ne lu mënta ñàkk la ñu ngi ko waxee ci ginnaaw sunna la ci ku ko man muy mag muy ndaw waaye ku ko mënut na nga xam ne sallallahu alayhi wa sallam sang bu tedd ba defaale na la ko kon jëlut sonn jëlut xëccoo jëlut yàq jëlut dara kon ñu xamee ko noonu ñoo ngi gërëm ñépp di sant ñëpp di tàllal suñu loxo nag suñu borom tabaaraka wa taala mi xam dara tëwu ko ci barke bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam barkeb Serigne Touba barkeb Serigne Fallu mi nekk ci barabam bii ñaanal suñu kilifa yi fi nekk ka ci jiit di Cheikh Sidi Mokhtar mi nga xam ne moo fi nekkal Serigne Touba suñu borom yàggal ko fi te wéral ko. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala barakaatu. sëriñ bi ñu leen ci turu sëriñ Abou Baraka mu di nuyu turu Cheikh di nuyu mbokki taal bi fi teew yëpp. ñu ne kilifa yi diine bi ci yëpp njabootu sew xarit bi ci yëpp ñu ne ñu ak mbokk yi jege ñaar yi ak ñi nga xam ne ay seex lañ te sëñ Tuubaa seexal seen maam ñu bàyyi seen barab yëpp ñëw jëriñ si barab yi teew si sëñ baa ngi leen nuyu di leen ndokkee bis bi tey sant yàlla di sant waxtaan wi tey du mu gudd nañ ci wax ci yam du bari ndax lu ñu xaar rek la waaye baamu bu fekkoon day aay juddu yooyu kenn ko baamu. dafa am ne ñetti xisal wala ñetti ñetti ñetti point wala ñetti kon ponk dañ koy dañ koy tënk alxuraan bi nga xoolee dafa mel ne juróom mbir la tënk ay xisas la am ak amru ak naxyu ak waamru ak waxit al amru bil maaruf wa naxyu anil munkar xisas yi nag kullan naqussu alayka min anbaa'i rusul maa nusabbitu bihi fu'aadak loolu yàlla wax na ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam da koy xisa nett bi nga xam ne weesu fekku foofu mu xam ko ngir lu dikk ci moom mu war a teg kaw tànkam xam ne lii jaaroon fi xamoon na di ko digal tim na def nangam def nangam yaa ayyuhan naas ittaqu rabbakum ni ma ko waxee jaamu yàlla def nangam loolu digal na wataqu naar la ci waxuut naa su hijaaratu sori teel loolu tere yi mu nga xamee ne alxuraan wax ne alaxira ñëpp dañu teew wa kullu ma ati yawmal xiyaamati fardan waaye ci boppam ñu nga xam ne dugg nañu àjjana ñu ne la si naan Muhammad salaati kan lu jàll fi solo xaalidina fiha laa yabxuuna anhaa xiwalan kon dafa ne juróom yëpp ngi ci biir alquran waaye loolu bu jàllee ñu barkeelu ko ci rek ndax Seexul Xadim dafa ne alquran ma ak moo tax ñu tudd alquran waaye fi tudd fi alquran waruñu fi ndax ñu gën a xam foofu ñoo fi nekk ñu raw yëpp ñoo fi nekk waaye kan kan li ñu waxtaan yéen rek euh, mooy ñu jëm ci li ñu fi indi bàyyi ñu fi te mooy otaal bi ñun ñëpp ñu ko ba ñu tàmbali waxtaan bi li ñuy a wax mooy waxtaan suñu bokk bokki bokki bopp nit ki amee loo xam ne kenn amu ko ñëpp ko am te kenn ko ku yàlla defal da war a sant yàlla te góorgóorlu si te gis ne am na loo xam ne bii ruur te ruur bi la mooy xew-xew fi moo jaay ñu fa élection lu dégg nañ ko fi yàqante ay der waxante lu ñaaw te loolu as gor mënu ko def borom ba borom li ñuy wax réseaux sociaux loolu tudd réseaux sociaux sociaux laa ko tuddee ay ay ay taskati yoo xam ne dañuy sosal ni rek. fekk as gor soo xam taqut taqawut nga dugg wax loo xam ne wañ mu ci dee te tegu ko lu may xëccoo àdduna si bon si rek la te ku koy def ñu war cee ndax sant woo xamee ne ba sëñ Tuubaa bi ci biir sant woo ku la gis fu la gisee nuyu la nga nga tudd sant woo bokk sëñ Tuubaa sant woo kookee ci boppam day daal dellu ginnaaw su mu muy daal bu amee at yi mu lam posam jox la ko kookee ci yow lu yàq wala ko wala cee bokk waaye gis ci loo xam ne métti nañu lool koo wax koo waxatu nekk métti nañu lool ndax dugg ci ab barab waxtukaay yàq fa dërëm as gor xas ko fa wax ko fa loo xam ne dara woo ko ci xam si yëpp dara la dara ci àddu jëm loolu maa ngi koy tere sama bopp di ko tere ñëpp te ko def te xam naa ne xañ na mer tax ñu ko wala bëgg àdd wala waaye la ma xamal ne seytaane moom ci du jóg di gem bi suñ tuwaa naa ko ci moom ba noppi da ko war a bàyyi daa dugg si njaboot kon seytaane dina seytaan aduwoon la ko fattaxisu aduwoon boo ko yàlla wax alxuraan am noonu seytaan am noonu la nañ ko jàppe am noonu kon noonu boobu day mel di dugg suñu biir bëgg jax-jax si suñu gi bëgg yàq lu bari bari ndax ne ku dugg ci internet bi wala nga dugg ci yeneen gis nga ne dégg nga ci yoo xam ne war a koo fi ñu bokk ñu ab cër ci lislaam déggu seen jabar li ko waral li ñu war a jëkk def dara rek mooy yar suñu jabar ba noppi ci teg lañ ci yoon yi suñu way jur tegoon ñoom njaboot Seex Xaadim fi ñu nekkoon nga xam ne Sëñ Tuubaa jur ak ñu yar euh, ñëpp kenn ku ne xam nga ne ku gis ci ñoom kenn xam nga ne kii Sëñ Tuubaa nappale ci moom lu yàqu du ko def du ko def def dox ba suñu suñu wàll ñun ñu war koo sàmm saytu ko mun na la yàqu suñu loxo dara ci àddu jël ko war nañoo taxawal bu baax a baax yaraat njaboot gi euh, saytu leen te lañ siraatu mustaqim te di leen euh, xool baax di saytu ci mbirum njàng bi di leen saytu njir mbir yar gi waaye dafa gis li nga gis moom kenn xamu ko gone gu ndaw gu juddoo demagu fenn di wax mag loo xam ne dara ci at bi jëru ko loolu ñu gis nañ ko te metti lool ku wax a ku waxul moo fi am waaye xam ne yàq la yàq goo xam ne ñu dugg ci suñu na suñu borom dimbali ba mu génn ci waaye la suñu fàllu waxoon nee na yoon bi ab lonkam fi ab lokkam fi manisé manisé manisé wax ba yàq fi de waaye manisé ba yàq manisé yàq yàqoo fi waaye kenn du wax ba yàqu ndax sa borom defal ko noppi kon loolu maa ngi koy bàyyi sama xel te ñu jéem a delluwaat ci gisaan euh, yara yaru mag ñi kenn ku ne ci ñun war naa xool fu mu féete Sëriñ ndax kenn ko si xam nga seen Sëriñ Tuubaa féete kon nag kenn ku nga bàyyi xel man fan laa féete Sëriñ Tuubaa kenn ku ne war nga boo jàppee ne man Sëriñ Tuubaa man la bàyyi ci àdduna lu baax maa ko defal waaye lu yàqu man la dara yàqu ci ndax sant boo xam ne ba ci duggee seen yaay ji bokk sa ndey day bàyyi dutul yónnee si sama am jëla jërëjëf sa ndey dutul boo ko yónnee mu dem boo ko laajee ma jox la kooku ci boppam lu jar dara ci àdduna yàq ko gisuñu ko te dafa mel la ñu naan ko bëgg yàq ndax doomu aadama doomu aadama rek la nit ñi nga xam ne dañoo am seen bokk yi bàyyi seen ndey bàyyi seen bàyyi bàyyi seen maam bàyyi gedd seen dëkk bi fekk Sëñ Tuubaa Sëñ Tuubaa aw melokaan am fi nit ñi waaye jikkoom bàyyi fii nit ñi ko loolu as na ko daw ku jomb na ko daw ab du waxi du koo xam ne daal ku yiw la am nga dox ci yaram bi képp koo xam ne yaa ngi Sëñ Tuubaa xel ne lii moom du Sëñ Tuubaa bég moom Sëñ Tuubaa li bëggee mooy yàlla topp yàlla jaamu yàlla di liggéey tey bañ tooñ kenn te ko te nga jégal ko waaye li xew ren gis nañ ko bu duggee mbakki mbakki yi nangam nangam bi nangam loolu ñu nangu nekkuñ fi sëñ bi ay nitam fi di ay bokk kenn déggu leen ci dara waaye waaye bu buñ rusu yàlla muy bind nañ rusuñ tubaab mi teral sant boo xam ne boo xasee tudd fu la waaj gisee teral lay bëgg a doon torox nga bëgg ko nga yàq ci ci ci ci ñàkk fay lii te lii mu jeex nañ ko seetaan baax a baax nañ ci delluwaat xel lu metti la ku ku am koo xam ne suñu tubaab ñor na ci metti na la boo ko waxee boo ko